tey samedi 21 mars 2020 ministère la santé et de l'action sociale jot na résultat wu test yi xamante ne def nañ ko tey si fanweeri test ak benn juróom-ñeent ñëw nañ nekk ay test yu positif am na si juróom yoo xamante ne moom la ñuy wax cas importé mooy cas yi jóge bitim réew am na benn kaa boo xamante ne cas contact la contact boobu ñu ngi ko rattaché ci cas numéro cinq bi ñu testé woon le 11 mars ak ñetti cas yu bees yoo xamante ne transmission communautaire la te rattaché wuñu ko ci cas numéro cinq bi tey fi may wax ak yéen juróom fukk ak juróom benn cas comptabilisé nañ ko ci Sénégal am na juróom yu si wér bon nag juróom fukk ak benn ñoo nekk hôpital ñu leen di faj seen yaram mi ngi tame ñu ngi leen di toppatoo bu baax waane boo xoolee cas yi ni muy augmenté ñuy wax ne mbir mi toll na foo xamante ne dara waratuñ ko toléré si comportement boo xamante ne day mettre population yi en danger ñuy wax sénégalais yi ñu respecté bu baax consignes yi xamante ne ministère la santé jox nañ leen ko ak mesures yi xamante ne jël nañ ko pour aar askan bi maa ngi leen di gërëm bu baax.